yëglekaay quotidien journal bi xëy àddu ci kàddu yi nga xam ne mu ngi tukkee ci njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jëm ci ñaawteef yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku jëm nag ci wàllu campagne électorale violence yi nga xam ne ne nemmeeku nañu ko ci journal bi nañu nag ginnaaw bi mu doon janoog taskatu xibaar yi samedi bi nga xam ne moom la ñu génn moom président di nag sàkku ci ñi nga xam ne ñoo sekk lang politique bi ñu daal di nag xool anam yi nga xam ne nag noonu la ñuy jëfee tamit responsabilité bi nga xam ne nag ku nekk ci ñoom uh, war nga koo am journal bi teg ci ni moom président uh, bëgg na nag jëwriñ bi ñu dénk wàllu yoon ak yoonal mu ubbi nag ab uh, l'enquête ngir nag ñu mën a xam ñan ñoo def ñaawteef yooyee lii quotidien journal groupe origine sa di feelu sud quotidien ci wax ji ne ñu ci jamono ji président réew Sénégal nag sol na mbubbu président te nee na nag du ñu fi nangu kenn nag di jóg li def naka su dul noonu ak fépp nag fa nga xam ne fa nga mënti bokk justice nag dina def liggéeyam waaye it euh, ñu xam euh, ku nekk nag taxawaay bi nga xam ne moom nga war a am muy wane ni nag euh, bu nu ko dee wax nag du or waaye du petrol jàmm ji nga xam ne nag moo fi nekk moo tax nag ñu naan Sénégal moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nataalam la ñuy fekk gros plan ci xët bu njëkk laas yéene kaay nee na ñi nga xam ne nag ñoo amal ay violence ci campagne électorale loolee nag duñu ko bàyyee noonu justice nag dina ci taxaw ba ñu xam nag ñi ko def te nag bu boobaa ñu xam nag li nga xam ne moom moo leen ci xaar ndax looloo tax Walf Quotidien nañu nag président ba siir Diomaye Diakhar Faye ci jamono ji nag bâton la jël réew mi quotidien moom it noonu la gisee ñu président nag bëgg na ñëpp ñi nga xam ne ñoo sekk langue politique ku nekk ci ñoom am taxawaay boo xam ne da koy matee ñu koy fekk mu toog ci xët bu njëkk nataalam ci xët bu njëkk le soleil le quotidien national ne nag euh, ku nekk sa responsabilité na nga ci taxaw waaye it euh, di xamle leneen ginnaaw bi nga xamee ne nag jugee na foofee ca Turquie ne ministre de la justice faaw nag mu ubbi ab enquête euh, ngir nag ñu xam mbir mi kan nag moo ko amal ci libération yéeni kaay moom président Diomaye mu baamuwaat ne nag justice dina amal liggéey te nag bu boobaa ku nekk nag dinañu xam responsabilité bi nga xam ne moom nga ci am ab foo mënti far enquête yéeni kaay président Diomaye ci jamono ji nag uh, yéy na yàbbi ci mbir bi nga xam ne moo fi am waaye it di wane ni moom nag uh, moom mooy président te moom nag lanu fal ndax nag uh, ñu ngi ko doon critiquer ci mbir yi Samba Ndiaye waaye boobaak léegi nag mu ngi génn di àddu ci mbir yi nga xam ne moom mooy xew ci réew mi journal bi ne nag ci jamono ji moom li mu bëgg moom mooy campagne bi ñu amal ko ci jàmm waaye it violence yi nga xam ne am na nu fi ñi nga xam ne ñoo ko amal dinañu dem nag wuyu ji yoon l'observateur le journal du groupe Futur Dramé Dia ca booba jamono daal dugg si ci làng gi wax ci transhumance bi ñuy nemmeeku ci jamono ji ñi nga xam ne ñooy riir di wutali su journal bi ne ñu moo ne day ki nga xam ne moom mooy leader bu Pastef moo nekkoon ennemi public numéro un moom la ñu ko doon woowee waaye ci jamono ji dafa mel ni nag loolee amatul ndax nag ñu bëri ci jamono ji ci politiciens yi ñu ngi dem nag ah, di fekki Pastef ak seen njiit di Ousmane Sonko journal immeuble Ilimane tax nag ba mu jox ci kàddu gi ab psychologue waaye yit ak sociologue ñoom nag ñuy wax seen xalaat ci comportement homme politique yu réew mi ah, source a ca beneen wet ga daal di nag ñëw ci coalition jàmm ak njariñ Amadou Ba ak Cheikh Oumar Anne yëkkati nañu ay kàddu ah, nee nañu nag toog muy dox baaxul waaye wax muy dox moom ñoom duñu ko nangu nee nañu projet yu bëri ci jamono jii danoo taxaw ndax nag ñi nga xam ne ñoom la ñu jox réew mi wax képp la ñu féetewoo moom la ñu xam moom la ñu mën moom la ñuy def Cheikh umar Anne ne nag procureur dafa war a convoquer Ousmane Sonko ngir nag mu indi ay leeral ci mille milliards yi mu wax ni am na ci ab compte bu mu ko fekk kon nag procureur daf ko war a woolu direct news Amadou Ba ay kàddoom ne nag liggéey du ànd wax ju bëri nag loolu la ñuy nemmeeku Anta Babacar Ngom coalition sàmm sa kàddu ay kàddoom ci Walf Quotidien nee na nag ñoom bu ñu amee majorité ci pencum ndawi réew ma duñu nag taxaw di tere nguur gi mu liggéey l'observateur daa di dikkaat wax nag euh, ci ki nga xam ne moom moo fi nekkoon procureur bu cour de répression enrichissement illicite di CREI yi Alioune Badara Ndao moom ancien procureur wax na ci mille milliards yu ñuy tudd waaye it lu jëm euh, ci wàllu euh, ki fi nekkoon njiitu réew di Macky Sall dañ koy tëj am déet yooyu yëpp nag moom ancien procureur Alioune Badara ndaw daan na ci dellu si ci xët bu njëkk journal immeuble Ilimandour les échos yéen kaay ñëw ci mbiri Casamance ak ya ñu fay wax ci jamono ji Ousmane Sonko daal di nag yëkkati ay kàddu ne nag képp koo xam ne yaa ngi woy di instrumentaliser mbir moom na nga xam ne nag ci kaso bi nga jëm Yoro Dia rafetluwul li nga xam ne moom a taxawaayu Ousmane Sonko ci mbir yi Cheikh Yérim Seck nee na moom bu dee loolu la nanu ko préparé cellule am ca kaso ba tribune journal group de médias fa la ñuy jeexalee journal bi lim bind ci xët bu njëkk bi mooy ci jamono ji dëkk bi dafa metti commerçant yi paysan yi di baykat yi ouvrier yi ak chauffeur yi ñëpp ay yuuxu nee nañu dëkk bi dafa metti tàmbidu laalin bu subaa ñu lalaat